addis bay saxal gaaf day wane ne gaaf ci boppam kay lu ama am la bay weddi gaaf weddiwul jëmmi gaaf day wane ne gaaf ci boppam du moo am jeexiti boppam di jeexital déedéet yàlla ci boppam mooy kay lor mooy kay jariñ jeexit boo séen rekk yàlla wakaana nekkoon na alayhi salaam yakrahu di sib say al asmaay aji ñaawi tur ya wa yuhibbu te muy sopp al fa ëllëg gaat nga alxasana guy aji rafet yonente bi dadaa bañ tur wu ñaaw mel ne ku tudd xarab ci firi xare wala ku tudd murratu bi firi aji weex ak yu demee noonu dadaa soppi sax tur yi mel noonu dafa soppan tur yi neex yi mel ne abdullahi abdurahman ak ahmad ak muhammad ak xaamid yi mel noonu moom la taamu woon ku soppoon gaat nga la gaat nga mooy nga dégg baat boo xam ne tombe naag sa pajug aajo te du yaa ko sàkk woon mel na nga jóg di wuti rek dégg ci wax naa ah yow day sa aajo faju na wala nga jóg di faju ji tombeeg am ki wax na ah yow day wér nga am nga jàmm ba noppi lu mel noonu bu fekkee du yaa ko sàkk woon laata ngay jóg da nga koo dégg rek mu tombe lu mel ne yonent bi soppan na ko bu baax a baax moo tax bañ ko laajee xiila yaa rasulallahi wamal fa'lu xaala alkalimatu assaalihatu yasmahuha ahadukum bañ ko laajee luy gaat nga ma ne gaat nga de mooy baat bu teey boo xam dëppoo naag sa pajug aajo te daa tombe rek nga dégg ko waaye du ba ngay jóg da nga ne woon su ma déggee baat bu demee noonu kat dem ci saa aajo waaye bu ma déggee baat bu safaanu loolu daal di wàññi ko loolu lañ koy bañ ndax loolu gaafal lay doon gaafal moom mooy safaanu gaat nga wal xuslu cangaay lil xay ni ñeel bët bu aay añ yëx si la mooy bu raxasee alxaayinu aji aay ji bët wacceexoo kanamam wooye day ak yaari loxoom wa mir faqa yi ak yaari concoom wa rukk ba tey ak yaari bati woomam wa atraafa rijlayhi ak cati ñaari tànkam wa daaxilata isaarihi ak biir tubayam caa jublu béré bu awraja fi xadaxin ci ndab wala nga ne ci pot su ma yu sabbu topp def na ko sotti xalal maxini cëkk bët bu aay ba dal bët bu aay moom lu wér la nattabli wuñ ko waaye daa mel nun fi ñu toll mën nu xàmmee ku amee bët bu aay ak ku amut ca bu njëkk daa mel ne ñoom dañ koo xàmmee woon su ma saam na yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo joxe woon tegtal wii wax ne ka amee bët bu aay ba xool keneen ba kooku loru ca dañ koy wax ne ko sëlmul raxas sa kanam raxas say loxo ba ci say conco raxas say tànk ba ci say batiwoom raxas sa awra muy biir tubéy ji fekk bi mu raxas mi ngi koy tiimale ci ndab noppee na ñu sotti ko kooke nga xam ne moom la xool ba bët bu aay ba lor ko wala yunzaru deful xool fi nujoomi ci biddiw ya illa mandare la nga xam ne yusta dallu def na sàkkoo tegtaloo bii ci moom xalal xiblati ci xibla wa ajji saa il layli ak xaaji guddi ga wa yutrakute dee fi bàyyi maa siwa zalika lu dul loolee ne jéema amu xam ci biddiw yi ba man cee xàmmee xibla foo toll ci guddi gi itam mën a xam waxtu yi guddi gi toll ndax boo bëggee xàmmee fajara yu demee noonu mën nga caa dolli it booy dem man cee tegtaloo gindiku xam fa nga jëm suñu borom di wax naa wa huwa allazi jaxala lakumu nujuuma li tahtadu biha fi zulumaatil barri wal baxr waaye nag li ci ñenn ñi gëstu ba di ci wax ay biddi yu gaaf ak yu gaafut ak di ci jéem a xam luy xew bu ëllëgee yu demee noonu lu mata moytu la kenn sañu koo jege dañ koy aaye muy lu mata moytu wala yut taxasu deful sañ a jàpp kalbun ab xaj fi dóori ci kër ya fil xadari ca taax ya wala fi dóoril baadiyati du caageenu ci këri àll ya illaa li zarhin ndare ñeel mbay aw machiyatin wala ak jur yasxabu xaagoog day àndoog ñoom fi saxaraay ci àll ba su ma yaroo topp dana jof si ba dana gont si maxa ànd ak ñoom aw li saydin wala ngir aw rëbbu yastaaduhoo wow dana ko rëbbu li xay si yi ngir dundam ba laa li lëxwi du ngir pox dañuy bañ nga jekki-jekki wut ko rek ngir xaj dalaa neex te jubluwoo ca lenn lum lay defal bu fekkee ne xaj ba du mat kenn du tooñ kenn def nga lu ñu sib bu fekkee ne xaj ba danay lor kenn nag mu daal di araam te dañoo war a taxaw temm ci rey ko lay tax nga sañ a wut xaj daal mooy danga ko bëgg a jariñoo ci bëgg mu lay sàmmal say tool mbaa sa jur mbaa ngay rëbb ji rëbb moo xam ne mu far la ci yow ndax mooy sab dund mbaa bokk yàpp dara jafe te rëbb mi ci ngay amee yàpp mbaa da ngaa bëgg boo rëbboo saraxe ko ngir yàlla yu demee noonu nde sax bu dee rëbb moo xam ne rëbbum po rek la ni ki jaww jee neex neex a génne rëbb ji de moom amu ca aajo ci rëbb ga kon du ca sañ a wut ab xaj mu des nag rëbbu rëbb moo xam ne bu jàppee aw rab da koy teg fee ñu koy seetaan loolu araam na wala boog bu rey rab yi da ko fay bàyyi rek du ko lekk da ko fay romb dem kooku moom dafa araam wala ba sa ayut bi xisaayil xanami ci tàpp gàtt ya limaa ngir la nga xam ne fii nekk na ci tàpp ga min salaaxi luxoomiha ci yiwug seen yàpp gàtt te mooy xar ak bëy tàpp ga day tax yàpp wa baax kon nag dagan na xar ak bëy nga tàpp leen nee nañu sax lépp loo xam ne rek dagan nañu lekk aw yàppam mënees na koo tàpp ndax bëgg mu am yàpp bu baax wanu xiye tereef na xan xisaayin xëyli walis tàpp fas ya fas nag moom dañuy bañ ku ko tàpp fas dañ koo fonkoon loolu yooyu jamono ndax wàllu jihaad ci yoonu yàlla li ci ëpp fas dañ ko daan defee te xam nga fas boo ko tàppee kon dindi nga ngóor ga kon day néewal rek ngir tem fas te nee nañu kat sibuñu nga tàpp bax la wala mbaam moom dagan na wayu kurahu def na sib alwas mu ñaas fil wacc yi ci kanam wala ba as ayut bi ci ñaas ga fii xëy di zalika ci lu dul loolee ak jur boo ko amee bëgg ko wutal màndarga tax nga di ko ñaas danga koy ñaas fu bokkut ak kanam nga waaye sib nañ nga ñaas ko ca kanam nga teene yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aaye woon na ku ñaas ci kanam wayu tarafaqu def na ñëwante bil mam looki ci kuñu moom ka wala yu kallafu te def ko togg minal xamali ci jëf illa mandare la nga xam ne yottiixu dana ko àttan jamonoy jaam amee boo amee jaam danga koy yërëm ñëwante ko di ko teg lu man waaye boo koy teg lu mënut ñu wax wax nga bañ yoon nangu ko ci yow jaay ko baabun li ab bunt la fir yaa ci gént wat tata ubi ak belbeli wal xutaasi ak tisli wal laay bi ak foye bi nard ci nard wa xëyriha ak ludul nard wa soqi ak rawante bil xëyli ci ay fas warami ak sànni wa xëyri zalika ak ludul loolee bunt bi moo mujj ci téere bi te ci wax mbirum gént ak belbeli ak tisli ak foye ba mu ñu wax nard nee nañ daañu ko tudde de à jouer wala tirik tarak waxëy riaa jum wax nag ak lu dul moom mooy lu mel ne chatranj chatranj nee nañu daañu ko tuddee jeu d'échec yaari po yooyu dañ leen a tudd ràññeel leen wax ne lu araam lañu na wax ci bunt bi ba tey rawante ci ay fas muy course wala rawante ci gëléem wala jongante ci ku dàq jam ci fet daa fekk booba lislaam ba muy door a taxaw ñu aajowoo man nga war lool ak mën a jam lool ci fet ndax booba dañuy jihaat ci yoonu yàlla te jihaat yooyu mënu caa ñàkk xaala waxoon na rasulullah yonante yàlla ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam arruya gént ga alxasanatu gay aji yiw min rajuli tukkee ci waay asaalih ju aji baax jusun ab xaaj lay doon min sittatin juróom benn wa arbaxina ak ñeen fukk jus an ci ay xaaj dina nubuwati ci xam-xamu yonante addis boobu am nañu ci xuus wax ca am nañu ca maanu bañ caa wax nee nañu nag ci waxinu gàtt rek mënees naa wax ne jullit bu baax muy góor muy jigéen dana di gént gént ngay dëgg goo xam ne kumpalagu ko yàlla wan ni yàllay wane ay yonenteem yenn kumpa yi ba tey ku gëm yàlla tey ku baax yàlla mën na ko wan ci gént kumpa nga xam ne kon mel ne kon wan nga ko yàlla wan kumpa daa xeetoon teeg na muy wane ab yonente kumpa waaye nag degré ya moom dañuy soree lool lool xëy na boo ko bëggee xamle xamle bu xaw a yomb bu neex a dugal ci xel mën nga ne na kumpag waa ju baax je daña daal boo ko multiplier woon quarante six ci ay degré lay door a àgg ci na ab yonente yi gisee ak nañ koy xamale kumpa waaye addis boobu daal mëtt xuus mënees naa takk rek ne waa ju baax ba jigéen ju baax yàlla dana koy wan ci gént di ko xamal yenn kumpa yi li nga xam ne moom yàlla dana koy soob muy xamal ay yonenteem yenni kumpa wa man raa ku gént min kum ci yéen maa loo xam ne yakrahu dana ko sib fii manaamihi ci ay nelawam fa ida stayqaza ndem yeewu na falyet ful na tifli an yasaarihi wali si càmmooñam talaasan ñetti yoon wali yàqul te ne wax ne allahumma yow buur bi indiya naka man aawdu danaa muslu bi ko ci yow min sharri maa ci ayu la nga xam ne raaytu gént naa ko gis naa ko fii ma naamee ci samay nelaw an yadurrani mu may lor fii diini ci sama diine wa duniyaay ak sama àdduna nee na saa yoo géntee loo xam ne neexut mel ne ne aw ay la da ngay tifli ndànk ci sa wetuk càmmoñ tifli yoo xam du am kàddu daal di ne suñu boroom li ma gént daal nag ma ci musal bu amee ay dara bañ ma cee laal wa man tata aba kubel beli fal yadda na teg yaddaxoo loxoom xalaa fii ci gimiñam soo bel beli dañoo bëgg nga jël sa loxoom ndeyjoor ubbeeku gimiñ gi moo xam biir bee moo xam bitti bee baax na bu dee loxob càmmoñ ba nag moom bitti ba ngay ubbee sa gimiñ te bañ koy defee biir téng la ba tey nag boo ubbi woon sa gimiñ ab sarbet mbaa musuwaar ba nga yorit ba tey baax na dañuy wax loxo bi rek waaye ubbal rek sa gimiñ lañ bëgg a wax wa man atasa kutis li fal yaqul na wax ne alhamdulillah waxalaa man war na ka nga xam ne samihahoo dégg na ko yaxmadu muy sant allah yàlla ay yàqu la mu wax la xooñeel ko di ko yarxamuka yal na la yërëm allahu yàlla wa yaruddu te dana delloo alxaadisu aji tislija xaalihi ci moom di ko yaxfiru yal na jéggal allahu yàlla lanaa ñeel nu walakum ak ñeel leen aw yaqulu wala mu koy wax ne ko yahdiikum yal na leen jubal allahu yàlla wa yuslihu te mu yéwénal baalakum seen mbir sopp nañ boo si lee nga wax alhamdulillah sant yàlla képp ku dégg na nga sant yàlla moom day daal nekk fardu kifaaya mu ndokkeel la dal lay wax yarhamukallah soo si lee ba wax alhamdulillah am ku la ndokkeel ba wax la yarhamukallah ñu sopp na nga dellu waxaat ku ne ko yaxfirullahu lana walakum wala yahdikumullahu wa yuslihu baalakum wala nga boole yaar yëpp loolu li muy tekki mooy yal na nu yàlla jéggal te jéggal leen yal na leen yàlla gindi te jubal seeni mbir bu tislee ñetti yoon nag benn bu ci nekk nga ndokkeel ko foofu ngay yem bu tisliwaatee yoonu ñeenteel mbaa juróomeel da ngay xam ne kon daa soj rek nga ñaanal ko yàlla jàmmal ko waaye yetti yoon yi moom ci ndokkeel doy na bul ko weesu wala yejuusu dagan allah ay bu foyee bi nard ci nard wala bi chatranji du caagéenu ci chatranji laaye juus ji wax nee nañu ak araam la araamal nañu foye nardu mbaa chatranji nard moom hadis bi daa wax ne man laa ay ba bi nard faqad xasallaaha wa rasulah ku foye nard mooy nga yàlla yonante bi ba yaar nee nañu moom dañ leen araamal doon sax amul benn teg buñ cay teg dañ koy def ngir foye kese itam du tee ñu araamal ko wala ba as ayit an yu sallama bu def nuyu xalaaman ci ka nga xam ne yàlla xabu dana foye bihaa ci ñoom kuy foye xeeti foyooyu daal bu nekkul di ko def mën nga koo nuyu waaye boo ko fekkee mu koy def nag moom bul ko nuyu ndax ndegam ci mooy yàlla la nekk waroo koo nuyu li mu wax nag mooy fekkoo mu di ko def mbiram la dana koy def waaye yooyu jamono moom defu ko kon mën nga koo nuyu wayu ko dafa def ne sit ajula su toog ilaa man jëm ci koo xam ne yàlla xam bu dana foye bihaa ci ñoom wa nazaru ak xool ga ilayhim jëm ci ñoom kuy foye xeeti foyooyu le bëgguñu ngay toog ak moom ndax boo dee toog ak moom dañuy defe ne yow it da ngay def loolee muy def jamono yañ koy def itam bëgguñu nga di leen seetaan ndax ndegam lu aay la lu aay wareesu koo seetaan boo ko mënee aaye aaye ko soo ko mënte aaye nga daal di daw sori foofa wala baas aayit bi sabqi ci rawante bil xayli ci ay fas wa bil ibil ak ci ay gëleem woo bi siyaami ak ci ay fet bi ram yi ca sànni ga nangu nañ jowante ci ñu wax course ci fas ak fas wala gëléem ak gëléem wala fas ak gëléem nangu nañ jongante ba tey ci ku dàq jam ci fet ndax lislaam dafa aajo woon loolu yu mel nii bu ma saa di jihaat man nga war ak mën a jam day am solo lool yi ma maye woon nañ ñu def ko noppi teg ca teg lu bokkute yett yi moom mënees na caa jongante rawante ca waaye nag su boobaa du amub teg yi rek lañ maye ñu def ko ba noppi mu amub teg daañu leeral nag nuñ cey defee teg ba moo di wa in axraja dem génn nañ ñoom ñaar chey an dara jaxalaa kon ñu def baynahuma ci seen diggante mu xallilan aji diggale ya axus dana jàpp daalika loolee al mu xallilu aji diggale ja in sabaqa ndem raw na huwa moom ci boppam wa in sabaqa ndem raw na xayruhu ku dul moom lam yakun du lam yakun du nekk xaale di ko war shay'un dara hada lii qawlu bunil musayyabi mooy waxi ibnul musayyab ibnul musayyab nee na ñoom ñaar ñi nga xam ne ñooy jongante ci rawante moo xam fas la moo xam gëléem la moo xam ci ak mën a fett la ku ne mën naa tegub teg ndegam bool nañ ca koo xam ne moom du teg dara te ñàkkaateeg du tee bu dàq yi jël ñoom ñaar daal ku ne mën naa teg ndegam dugal nañ ci koo xam ne moom du teg dara te moom moomee tegul dara bu fekkee moo leen joŋ dana jël lañ tegoon ñoom ñaar te moom bu fekkee dañ ko raw joŋ ko duñ ko wax ne ko yow kat war ngaa joxe nangam Ibnu Musayyab nee na buñ ko defee noonu mu dagan waaye taxul ñu sukkandikoo waxi Ibnu Musayyab ji les Malik di bëgg a wax lañu sukkandikoo. baatub almuxallilu aji diggale xëy na itam ñu firee ko muxallil aji daganal ndax dañuy wane ne boo toppee wax jooju kooku ñu ca boole te moom du teg dara dara moo daganal ñaar ñooñee kenn ku ne sañ a teg da nga takkaale foofu ne mépp po moo xam ne rek kenn ku ne day teg ñu jongante ku jong rek fab lañ tegoon moom carte la ak anam guñ ko mën di defee rek dañ koy aaye ci lislaam waxaal wax na malikum malik ne innama yajoosu naka dana dagan ay yuxrija bu génnee arrajul waa ji sabaxan ab teg fa in sabaxandeem raw na xayruhu ku dul moom axadahu mu jël ko wa in sabaxandeem raw na huwa moom kaana kon mu nekk lii la si ñeel ka nga xam ne yali dana sës ci moom minal mutasaabiqiina ci way rawante ña Malik nee na duñu man ñoom ñi rawante wala ñoom ñi jongante kenn ku ne génneb teg ndax loolu carte lay doon mën na ca am nag ku génne ab teg te lu yàgg-yàgg teg ba du delsi ci moom mukk-mukk bu dee ñoom ñaar nag kee teg-teg ba kee moom bañ a teg dara koo ki nga xam ne tegul dara moom bu rawee mooy jël teg ba su fekkee ne ëppoon nañ ñaar te ki tegoon teg bi moo raw ñu wax ko ne ko yow kat doo ko jël kon koo xam ne moo ko deuxième maanaam koo xam ne gannaawam moo ca raw rek mooy jël teg ba su fekkee day ñaar dong nag te ka nga xam ne moo teg teg ba moo raw ñu wax ko ne ko yow doo ko mën a jël kee itam raw du ko mën a jël say boo jox ko ña fa teewoon rek ñu seddoo moom lay wax naa wa in lam yakun ndéem amut xëyru jaaxili sabaxi kudul aji def teg ba wa aaxaru ak kaneen te sabaxate raw jaaxilu sabaxi aji def teg ba akalahoo kon lekk ko man ka nga xam ne xabar teewe woon na dalika loole ñaar rek lañu woon kii moo teg teg bi te moo raw boole ci te ñu xam ku ne ko yow ndegam yaa teg teg bi moom du ñëwaat ci yow mukk kon du mën a jël teg ba kee itam ñàkk gaa raw day tax du mën a jël teg ba kon ña fa teewoon lañuy jox teg ba ñu lekk ko kon seetlu nga ne xeeti jongante yooyu bu ca ab teg xasee am rek mu daal di indi ay jafe-jafe waaye daal am na anam boo xam ne moo gaaw ci daganal ko te yombal ko te loola mooy ab jaambur ñëw tegal leen nga xam ne moom yoonam nekku ca da leen di tegal teg ba rek ñoom nag ñu jongante moo xam rawante ci course la moo xam rawante ci ak mën a jam la ku jong rek wala ku raw rek daal di jël teg boobee wa jaa dikk na fiimaa ca la nga xam ne zahra feeñ na minal xayaati ci ay jaan bil madinati ci madina an tuzana bu dee fi yëgal leen wala bu dee fi diisoog ñoom diisoog yëgal ak xuppaate talaatan ñetti yoon nee na ku baax ka sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daa waxan ne inna bil madinati jinnan qad aslamu fa ida ra'aytum minha shay'an fa aadinuuhu talaatata ayyaam fa in badaa lakum baxda dalika faqtuluuhu fa innama huwa shaytaan ku baax ki sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daa wax ne madina day am na fi ay jinne yoo xam ne dañoo tuub te jinne danay soppaliku ci anam yu baree bare kon mën na kon mën naa am jinne yooyu soppiku ay jaan kon bu ngeen gisatee jaan ci madina na ngeen wàqanteeg moom wàqanteeg ku xellu ne ko ah bu fekkee gëm nga yàlla gëm bis penc day te di ab jullit bu ma la gisati fii mukk mukk mukk gannaaw tey te it na nga mooy tooloor kenn ci nun bu ma la fi gisatee day dinaa la rey mbaa bun la fi gisatee daanu la rey moo tax sara bi wax naa wasifatul istizaani an taqula in kunta tu'minu billahi wal yawmil axir wa anta muslim fala tadhar lana xilaafal yawmi wala tudina fa in zaharta lana xatal naak xam nga ne jaan moom amul xel waaye nag ndegam mën naa muy jinne ji soppi ko jaan te jin moo tax ñu wàqanteeg mu wàqanteeg góor gu am xel xam nga bu doon jaan ji ngay wàqanteel moom in kunti tu'miniina billahi wal yawmil axiri wa anti muslim ngay wax waaye da ngay wàqanteeg moom rek mel ne kuy wàqanteeg jëmm ju góor ju xellu in kunta tu'minu billahi ba namu daanoo yonent bi nag ne su ngeen gisee jaan wàqanteeg moom nii gisaat ko ci ëllëg sa muy ñaari fan wàqanteeg moom ba ci ñetteel ba ngir wàqanteeg moom noonu lu weesu ñetti fan ña moom nee na su ngeen ko gisaatee rek saye boo ngeen rey ko xam ne saytaane la mu tekki nag moom boroom téere bi ne wa in foy la ndeem defeef na daalika loole fii xëyri xaa ci lu dul madina fa huwa kon moom xasanun aj rafet la nee na sax bu fekkee foofa du madina beneen dëkk la la gën mooy boo fa gisee jaan nga waxanteeg moom nii ñuy waxanteeg jaan ju ñu gis ca madina boo ko defee def nga lu ñu sopp wala tuusanu defu leen yëgal nag ñoom jaan ya fi saxaraay ci àll ba mu yuqtalu def na rey maa la nga xam ne zahara feeñ na min xaa ci ñoom bu dee ci àll nag moom nga xam du kër moom buñ gisee jaan sooy boo ñu gaaw rek rey ko ndax jaan moom ab lorkat la moo xam ci àll ba la moo xam ci mbedd ya la daal ci mbeddi àll bi ku ci gis jaan say ba mu taxaw te mu ci rey ko wayu ko dafa def na sit qatlul xamli rey ay teeñ wal baraaxiis ak ay fel binnaari ci sawara ay teeñ ak ay fel nga leen rey ci sawara ni ki leen seppi di teg ci sawara loolu sib nañ ko ndax dañoo wax ne yàlla mi nga xam ne moo sàkk sawara rek moo sañ a mbugale ci sawara lu may nag dañoo bari bari waay boo xam ne lakk leen ci sawara rek mooy tax nga gaaw caa noppalu waaye neexuñu rey neneen kon nag say boo rey leen ci sawara wala ba asa ayut insha allahu ndéem soob na yàlla bi qatli nam li ci rey xorondoom ya ida aadat ndéem lor nañu wala mu yuqdar te attandeefut xalaa tarkihaa seenu bàyyi wala walam tuqtal doon te reyeefu leen kaana kon mu nekk ahab di gën a sopp ilinaa jëm ci nun malik nee na xorondoom moom bu fekkee loru la bul ko laal bu fekkee dafa laa lor nag matt la te mënoo muñ nag lor ja kon nee na yaakaar na ne boo ko reyee du wàññi dara waaye soo mënoon bàyyi bañ koo rey nag sax mooy gën li tax mu wax incha allah nee nañ xëy na daa déggul Mali wax ca dara dara mel ne kon gis-gisu boppam la mu boole ca incha allah. yuqtalu def na rey alwasaxu unk unk moom day saay-saay bon wax ne na rey nga sax am na tuyaaba see boo foo tool wut ngànnaay teg ndax boo ko gisee rek mën a fexe ba rey ko wayu ko def na si xatulu dafaadihi rey mbott ya mbott dañoo wax ne bokk na ci yi gën a bari lu muy sàbbaal yàlla kon bu fekkee mbott deful benn ngaañ deful benn yàq kon sib nañ ko ko rey bu fekkee day lore nag moom mënees na koo rey waqaala waxoon na annabi yonante bi alayhi salaam inna allah naka yàlla adhaba dàq na mooy dindi na ankum ci yéen xubbiyatal jaahiliyati réylug way réer ña wa faxraha ak seenu damu ak seenu damu bil abaay ca bàyyi mu'minun aji gëm rek taqiyun koy aji ragal yàlla aw faajirun wala ab saay saay shaqiyun koy aji taxee di antum yéen ñëpp banu aadama ay doomi aadama ngeen wa aadamu te aadama min turaabin bàyyi ko na ci suuf yonent bi nee na woon ñu njëkk ña nañ daan damoo ci seeni askan yi bàyyeeg seeni maam loo loolu léegi jeex na yaar rekk fi nekk gëm yàlla ragal ko ak weddi ko di ko moy ku gëm yàlla ragal ko loolaay teraanga loolaa amuk mujj tey ak ëllëg ku ko weddi te di ko moy nag kookaay ka texee di kookaay ka bon donte bokk na ci askanu baaxu mi damoo it bu xasee weddi di mooy rek doonatul dara tax nee na ñëpp ñu ngi bàyyi ko ci aadama ak awa mën nga ne aadama sax mooy cosaanul ñëpp ñëpp yàlla sàkki ko ci suuf wëlbatiku dindee soxnaam ci ak faaram xam ne kon xawaa mi ngi bàyyi ko ci aadam aadam bàyyi ko ci suuf su yàlla tabax wala ci ak ruu rek kon ñëpp ñoo bokk ndey ak baay gënaante wuñ ci cosaan ñu ngi gënaante ci gëm ak ragal yàlla waxaala waxoon na annabi yonante bi alayhi salaam fi rajulin ci waay taxallama jot xam lu woon na ansaaba naasi askani nit ña ne xëy mun xam-xam la laayen faxu bopp du jëriñ wa jaxaalatun te ak réere it ak réere it laa taddurru du lor am na ko doon jàng xam-xamu askan mooy di jàng bëgg xam ne diw diwa ko jur diw diwa ko jur boo ko toppee moog diw ñu bokk tase ci diw ni ko ñaan ñi defee fii ci réew mi yonante bi ne ah boobu xam-xam day moom xam nga amul njëriñ umpali gay du wàññi dara waxaala wax na xomaru xomar ne taxal la moo xam lu leen min ansaabikum ci seeni askan maa loo xam ne tas yi loona da ngeen mën a jokkee bi ci moom arxaamakum seeni jege ñaale ma seenu mbokk Omar nee na woon ndegam jokku bokk dañ ko farataal te boo xamul say bokk doo leen mën a jokk kon na nga xam ci say mbokk loo mën a topp ndigal mooy loo mën a jokke bokk waxaala wax na maalikum maalik ne wa akrahu danaa sib ay yurfaxa bu dee fi yëkkatee fi nisbati ci askan nga fii maa ci la nga xam ne xablak islaam yi nekk na ci njëkkal islaam minal aabaa yi ci ay baay maalik nee na woon man daal bu ma sañoon buñ dee wax askanu nit ba àgg ci maamam ji nga xam ne moo njëkk a tuub dañ cee yem te bañ a jàll di wàññi maamam joo xam ne ab yéefar la woon waru yaa gént ga asaalihatu gay aji baax wala gay aji dëggu jus un ab xaaj lay doon min sitat juróom benn wa arbaxi naag ñeen fukk jus an ci ay xaaj mi ne nuppuwati ci xam-xamu yonante wa man raaku gént fi manaam xii ci ay nelawo maa loo xam ne yëkkaraxu dana ko sib fajoot ful na tifli an yesaari yi walis càmmoñam ba talaasan ñetti yoon wala yetaxaw wasdate na muslu min charri maa ci ayu la nga xam ne raa géntoon na ko